match Sénégal bi vendredi bi ñëw muy final bi. Mhm. am na depuis 17 ans muy final bi. Mhm. donc bu nar a tombanteeg seen marché bi da ngeen tukal marché bi wala nu muy def. non marché amul vendredi dañu wax marché day am vendredi. non ñu déggoon nga tous les vendredis. waaw mais xam nga euh, après bi mujjé mujjee def euh, géejawaay. dañu fa ñu toog constaté wu waxtaanaat préparé ko bàyyi sitting yi. d' def ay marché parce que affaire sitting la. Mhm. il faut ñu changer stratégie parce que affaire du pétrole avenir du Sénégal mo nek en jeu.

dañuy gàddu coupe bi ba pare di flagellé suñu patron c'est-à-dire il faut pas gars yi di confondre lépp Sénégal lay amee lépp njëriñu Sénégal la li ñuy ñaan yàlla kay di ko ñaan mooy yàlla bu Macky Sall dem Égypte buy dem ñu ñuy dóor. ah bon loolu rek laa day ume buy dem ñu ñuy dóor gis nga boo gisee. newoon na day dem ah. man de maa ngi julli ba ba léegi di ñaan yàlla bu mu dem buy dem moom da ngay waaru Macky Sall day ume bu mu dem na toog rek bàyyi ñu ak suñu équipe xam nga loolu est ce que comprendre fu lay waxee parce que football bi boobu léegi boo gisee muy dem ni parce que waxu si ah. bu ci yëy di yàbbi rek mu yàqu lu mu laal mu yàqu loolu moom maa la ko wax moom nan noppi rek dimbali ñu bàyyi ñëw suñu football moom du Aliou Cissé xamul technique xamul dara ci football xamul lenn ci football comprendre nga ministre bi du moom mooy football xamuñu dara ci football li ñu xam football mu footballeur ko ñoom ñoo am jom ñoom ñoo gëm seen ñoom ñoo dem muyee la rek kon moom rek dimbali ñu rek bu mu ci profité moom si football bi jotewul ak moom mu yàqu bu mu dem bu mu dem Mhm. Karim lay jaajëfal. maa ngi bu baax a baax waaw message bi may lancé Sénégalais rek mooy euh, dimanche. imam yëpp yi nga xam dañoo dëgg dogu. Hmm. ànd sàmm jikko yi nga xam ne ñoom Adama Mboup ñoom Babacar Mboup ñoom xalis euh, euh, sëriñ yëpp. xalif hmm. général des mourides yónnee ñaari ay proches ñu ko jege. xalif hmm. Ndiassane. Layen ñëpp dañuy daje ñun ñëpp nag ci affaire góor jigéen ñi.

goor buy jigéen jigéen lu ñu fudd sa ndigg jigéen buy góor góor lu ñu fudd sa ndigg c'est très simple am na ay góor am na ay jigéen yu ñu mel ni ay góor naan dañuy defaan wàllu sëñ ñooyu yëpp buñ tegeen waay ñoom ñëpp la ñuy tëj ci kaso jërë ngeen jëf wa salaatu wa salaam ala rasulullah jaajëf